jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant bu ngeen gisee ñaar ñi ñu toogal wala ñu ñu taxawal nga xam ne ay champion lañ ki ñu fi woon ak di jàmbaar production xale bii di bébé bis mi kenn du ko présenté ci làmb mu nekk ndaanaan bëri fi journée bu nekk waaye kii révélation la ci làmb muy Baba Jaxal mu nekk xale boo xamante ni moom it macha allah mbooloo mi bëre bi fit gi ak sañ-sañ bi ñëpp xam nañ ko ci moom man nag li jaaxal mooy jàmbaar nu def. ba taxawal affiche bi war nañu ko wax wala wax ko yeneen promoteurs yi ñu fay mën a jaar parce que yaakaar naa ne journée boobu journée bu garaaw la ndax combat bu ci nekk am na ci promoteur yoo xamante ni bu ñu ko amoon wala ñu may ko Modou Anta wala man dañ koy def grand komba komba bi rek doy na grand combat ñu ngi nekk ci weeru koor nag ñaari mbëri ñu ngi nii taxaw kii di Bébé Bismi ndaanaan la ci làmb moom it gis ngeen li nga xamante ni def na ko ci làmb moom it Baba Jaxal bi mu ñëwee fekk na ko fi ñu nuyonte saafante waaye lii ñu njëkkee man xam naa ni duñu ko mujjee Bébé Bismi léegi nee na dafa xiif taxawaay bi day xaw a metti ci moom waaye dañu koy jox mu nuyu mbokk internet yi wax digganteem ak Baba Jaxal nuyu ko baalu àq ñëpp ñu baal ko àq ñaan yàlla suñu borom mu boole ñu jéggal mbër maa ngi lay ziar bu baax di la mag maa ngi delloo ziar yow asalaamaaleykum maaleykum salaam di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar yéen ñëpp di leen baalu àq si koor gii ñu jugee nii di si koor gii ñu nekk nii mm. di baalu ñëpp àq xam nga di baal waa Cambérène ak di baal samay dëkkandoo yëpp ñëpp àq di wax yàlla na yàlla mooy kooru jàmm ak salaam xam nga yàlla defal ñu lépp lu bëgg si koor gi yàlla defal ñu ko di nuyu sama adversaire Baba Diakhal di ko baalu ak ak ñi mu àndal ak ñëpp xam nga di baal ñëpp ak daal di nuyu nag sama sëriñ xam nga di ñaanal sama sëriñ yàlla na bàyyi ko fi mu gudd fan am wér ñaanal sama sëriñ sëñ Ablaye yàlla bàyyi ko fi yàlla yàlla fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee mm. si barki Seydouna Mohamed di ñaanal sama yaay yàlla bàyyi fi sama paa fi mu tëdd yàlla na suuf sedd si kawam mm. ak mbooleem néewu lislaam yëpp mm. di sama grand mor xam nga moom mi taxawal li affaire bu nice xam tamit lii daal mooy loolu ginnaaw ma sant yàlla julli si yent bi di sant sama ñaari waajur sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ mboolem ku nga xam ne sa yaay ngi dund na fekkee seen njëriñ di ñaan maam Thierno baabul laahi baabul janat sama sëriñ sama wasila yàlla na fi yàgg te wér di baalu ñëpp àq nag di baal ñëpp àq di baal ñëpp àq samay xarit xale yu ndaw yi moo mi nii ñooy xarit baabu jaxal di baalu àq waa sam-sam jàmm gën fépp fépp ku nga xam ne fan si baabu jaxal muy fa maa lay baalu àq si weeru koor gi te di leen baal yàlla ñu yàlla boole jégal te mm. ñaan sama papa nag suuf yàlla ñu oyof si kawam di nuyu Mor mi nga xam ne jàmbaar TV ñoo taxal combat bi mm-hmm. di leen nuyu nga xam ne amuñu seen fay mm-hmm. di ñaan lii nañu soomi mm-hmm. waaw yàlla nañ ko mën a naan te yàlla nañ si réussir si barke borom daaru amin moom de def ne mu ngi lay baalu àq man ah, dala amee la dafa sew àq dafa sew mais mun nañu baalante baal naa ko àq yàlla na mu yàlla boole jégal ñu bokkoñ ñëpp mbër baal nañ la ah xaw ma sax laaj naa leen ko. waaw ah jàmm la du jàmm de jàmm mun na faa jàmm ah du jàmm si yéen. xeex dara dëgg bañ. ah jàmm la de wax dëgg yàlla. xam nga bébé bis xam nga. Baba Jaxal da laa xam. man sama bopp laa xam. daa ngi bëri dangereux ci mais sant yàlla comme que dem nañ bay bëre ku danger. Hmm. te yaakaar naa ne Jalle Birame Thior école la di Jalle Birame Thior. Hmm. ñu fa nekk yëpp ay danger lañ. Hmm. fekk maa ngi jàppante ñoom. ki mel ne ñoom Bonaar Fall ñoom Modou Baye Fall ak Bata Faten. ay ñàkk jariñu alliance bi ah mais sant yàlla. yaa ko laaj dañ la ma ko de. dañ la ko ma ko proposé làmb làmb buñ nee làmb day taxaw sama diggante maam moom dañuy taxaw ñu bëre. xëy na tëdd mais da ngaa. dégg naa nga wax de. Ah. dégg naa. Ah. kon amu gos lu la leer de. waaw nekk ma pour Bébé Bismi kese de. wëndëng bi mu ngi fi ak ñëpp ak mbëri yëpp ki nga xam ne laamu boole na moom promoteur yi fay ko ñu bëre. Hmm. loolu laa fi nekk. Bébé Bismi adversaire yi ñu doon proposé suwaaw mooy li yàlla moo dogal maa moo waroon bëri rek suwaay bu loolu laa ko de. Mm. waaw du dara taxul nag mu jël ko su waaye dama jàpp ne maa ngi moom waroon bëre rek. yee waaw. xam nga ko bi koy jël. non xaw ma ko mooy loolu. def nga musiba de. xaw ma ko. jël koo xamul. non boo léegi xaw ma ko maanaam boog xam xam naa turam xam nga mais xam nit ki day fekk mu def la xamante ni li tax ñu ko war a xam. Mm-hmm. moom bëriwul ak kenn. non bëri na ay ndaalaan ñi mu daan ay ndaalaan lan. que ay ndaalaan lan. ay ndaalaan bu loolu ay ndaalaan duñ bëri fi ndaalaan da ngay dugg si géew bi. Hmm. Mm-hmm. loo ko fas yéene moom. moom ah fas yéene gu ma ko yan fi mu la sànni yéene gu ma ko dara nag. mais le jour ji moom fa la yan bi di commencé quoi. Ah, mais nii koor de da ngeen ni koor rek nii moom duma ma ko yan dara nii moom dama koy bàyyi ñu wóor jàmm ak salaam mu nekk si ay affaire am business am xam nga. Hmm. comme koor gi moom kenn du si teg kenn dara lu mu antanul. Hmm. naa ko bàyyi koor gi rek doy na yan quoi xam nga ñu hmm. gérer koor gi ba si kanam. yee. yéen ñaar neexoo ngeen de jegeel nii. làmb la rek ñu ngi jàkkaar loo leen. nga gars yi wax leen àtte leen. xam dañoo ne làmb. waaw nee na koor gi. dong hmm. doon na yen waaw nee laa yen dara fi mu toll xam na ne dina la yen moom. te du la ko yen léegi. dinaa ko yen lu métti yenaa la ko koor gi mu gën a métti si moom. moom mii mën nga ko yen lu métti. ah moom sax mën naa kaa yen lu métti. nee naa la Modou sax laa soxla biir parcelle. <laughs> loolu de mooy ko ci yow xeeb na la de. non am na yoo xam ne du ma si tontu man man man man man du ma am na yoo xam ma si tontu man day am la xamante ni. man de wax man. nga ni doo tontu. daa am yoo man du si tontu. mais am na yoo xam ne dama siy tontu. Ah. sama wax sama wax la. Ah. mais li muy wax noonu xam nga Sénégal kenn du ko si tontu. dama xam ne kenn du ko si tontu rek. am na gëm-gëm bi waaw mën naa am gëm-gëm bi xam nga man gëm am gëm-gëm bi am gëm-gëm bee bëre bee bis am gëm-gëm bëre móoloo ku ne. Hmm. waaye mën nga am gëm-gëm bi dugg ba si biir géew après boo paree nga xam ne lii nekk doon du woon sa gëm a gëm. Hmm. Mhm. da ngaa jàpp ne da laa xamul. man moom wax nii xamul la man man mën nga jël sama avance wax lu la neex mais le jour ji boo dugganteeg ni ñiix ba ku jàpp sa morom. waaw ku nekk di nga xam kii kii ma doon waxal loolu laa am lu may wax quoi. dóor mu daanu mun naa am. làmb moom lépp si am lépp bëgg nga ko dóor mu daan moom non baa ma daan ko rek mooy loolu. da lay waaw am na ah, waaw waaw ba pare moom kii mu rejeté ak kii kan lan moo tax mu rejeté Ardo jël kii la wax. bu mu am na ko si yàlla yóbbu ak mais que le meilleur gagne. ainsi sama combat kii moo taxaw. non man waxuma daa nooy de. làmb ji amul lu nooy. est-ce mu bëree. Mhm. Euh, mbër am na fooy tool di bëri di bëri il faut nga jël benn risque bi wane sa bopp. Hmm. néew ma kii risque la si man de mais il faut nga risqué àdduna si boo risqué wul rek doo am dara. daa ay ci booy de. ak ay ci booy. Bébé Bismi booy bu ne ci yoon. Mhm. jaar ci autoroute bi di daw <laughs> moo ci aay. wëndëng bi. lu nekk si kanamam lu ne da koy faxas jàll baaba jaxal wëndëng bi lu nekk si kanamam lu ne si kàttanu yàlla. da koy faxas jàll. moo daan da kaay jege si daa mel ne am na lum la guuxal de. ah na la lu ma waay guux lu jàppee da koy wàccuwaat. Hmm. waaw loolu kese la. kon bi yëpp fii la ci buntu arène bi. mais du lu ma waay bu ñu jàppante koy wàccuwaat loolu maa la ko wax ak ku mënti doon nag. loo xam-xam ma dem ma dem ba gën laa xam mhm. bopp xam nga xam nga ñaari bëri de waaw maa lay siyaar bu baax a baax di nuyu suñ mbokk internet yëpp di leen baal ak di leen balu ak si weeru sell wi mhm. di siyaar suñ mbokk yi fi nekk yëpp boo limee da ngay juum mhm. wax dëgg yàlla di siyaar di félicité waa waa jàmbaar production. Mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk nañ promoteur yoo xamante bi nii seen premier tour ren la. Mm-hmm. mais macha allah gis nañ ñu taxawal affiche yoo xamante bi nii dañ ko doon xaar ci promoteur yi nga xamante bi nii ñoo fi jiitu woon ci làmb. Mm-hmm. waa jàmbaar nag boo gisee xam ne ay ndaw lañ yoo xamante bi nii ñu ngi doog a sol mbubbu promoteur bi. mais yàgg nañ sur le terrain. nañoo liggéey ay promoteur yàgg nañoo jàppale ay promoteur te wax dëgg yàlla lépp naaj na ñu andil ñu suukaru koor boo xamante bi ni nag ginnaaw franc ak ki nga xam ne mooy soq mm. combat bi desee bokk si combat yoo xamante bi nii yaakaar naa ne combat yu neex la. suukaru la ah si suukaru koor la fan yii suukaru koor yi daa xew. Ah, xam nga gars yooyu la ñuy joxe ak yeneen. wax dëgg yàlla ñu boole ñaari xale yoo xamante bi nii macha allah kii bi muy bëree boobu yaakaar naa ne ay atam matew ko pour mu bëree. muy bébé bismi waaw. Mhm. dafa teel a dugg si làmb parce que bi muy bëree xale bu ndaw la. Mhm. boo dee xool sax combat yi dafa bëri. ñoom Balla Gaye li ñu am si combat loolu la am si combat. Mhm. ñoom Modou Lo presque foofu la tool parce que bii mooy vingt-troisième combat. loolu du caaxaan. te kii sama wet six combat Baba Diakhal cinq victoire benn défaite. Mm-hmm. moom Baba Diakhal wax dëgg yàlla mu nekk ndaanaan. sixième victoire ba <laughs> dinaa dinaa ci ñëw léegi mu nekk ndaanaan wax dëgg yàlla. parce que tamit boo dee xool journée yi mu bëree yëpp cuune du fa bëree gis nga ko bi mu mujj fi Clémenceau mm-hmm. baat ak tontu la mm-hmm. gis nga ko bi mu fi mujj ak moom Pape Pape tontu la mook Belende Junior baat ak tontu mm-hmm. mook Adidas baat ak tontu benn defet la am jooma ko daan kii nag daa aay ci xale buy dem comme ni ko Xaadim Seck waxee Boy Reef tolloon na mu daan Zal Bambay tolloon na fi mu daan Cheikh Super Jamono tolloon na fi mu daan Ndiasse 2 tolloon na mu daan ba daan na grand kii taxaw Mm. alliance biram moom ak bébé taala ah, ñoom xam nañ ko yooyu lay def ak yeneen jiili revanche la waxal ak ñoom boole dégg boo da ay revanche nga boole indi fii yow waaw revanche oh. bu daanee alliance biram oh. dugg naa parcelle daan fa daan naa fa ñaari waaw kon ah. taala waaw champion la ndaanaan la. di nuyu di nuyu alliance biram sama champion sama mag sama lépp. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may kooma mu am si ndam. kon alliance biram ngay jël revanche. non sama bopp laa ñëwal jëlal sama revanche bopp. Eh, pour bëri booy bi am na lu la jàppal la ngul wax nag. waaw lu mu ne man li ma la wax leen moom ku ma guuxoon biir géew da ngay wàccuwaat lépp moom loolu maa la ko wax moom ak ku mënti doon. dama ragal guux ma bruus la ko. bruus ko. bruus kay si kanam gi. ko bruus kii. ah kon géant la sant yàlla rek di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yóbbu ci jaama ah. Mor maa lay jaajëfal bu baax Mor Mor maa jaxat sob rek nga dugal ci combat bi sob sob sob kase ak yàqamti daa yàqamti sob ak yàqamti rek nga dugal ci combat bi wallaahi azim kon daa bëgg a yéeg sob ak yàqamti rek nga ci dugal wallaahi azim yéen ma ko woon lool nag mais après xam rek malheureusement mooy loolu quoi ndeysaan wallaahi azim ñun sobam tuñ de dañoo sob te si luñ dugg lu ne si kàttan yàlla dañ ciy génn. moo tax man ko sobantuuma damaa sob dëgg pire wëndëng bi daa sob dëgg yërëmantalul nag fañ lay yërëme na yërëm boppam moo gën mu ma yërëm. Hmm. voilà. doo ko yërëm. ah en tout cas daal nee na daf yërëm yërëmantalul daal fañ lay yërëmee fenn jara yërëm. Hmm. buñ la buñ demee ba jàpp la de la daa ngi daay naan la yàlla na la yàlla yërëm yàlla na suuf euh, si yàlla na yéex. <laughs> waxuñu foofu ñun fii la ñuy waxee ci laafu ci ci digg géew bi ñu leen di jaajëfal bu baax moor mu ngi nii moor bu parcelle vraiment xam ngeen ko ci làmb xam ngeen ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci làmb macha allah ci yaram ci tegginam ci dalam ci bëgg nit Mor tey li ñu bëgg a xam mooy journée bi wala ñaari xale yi. noo def ba décroché combat bi ñu ngi lay nuyu baax di la si. waaw Baye Jili maa lay nuyu di nuyu mbokk internet yëpp. Hmm. waaw di baalu àq ñëpp si weer wu sell yi ñu nekk di baal àq ñëpp. waaw di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. Hmm. waaw ñu ngi rafet lu baax seen liggéey. waaw di gërëm presse bi fi teew yëpp. waaw en fait euh, Baye Jili ñu ngi ñu ngi gërëm tamit staffu jàmbaar production bi yëpp xëy na njiit bi man la teg si kalam mais staffu yaatu la. Mhm. amaana comme ni ñu koy waxee rek ay différents personnes ñoo si nekk ñii ñu ngi Pikine ñu ngi si nuyu le président Goro Doy mhm. di kuy joxe xalaatam si jàmbaar production. Mhm. waaw di nuyu Fadam Zion tamit moom moom it kuy joxe xalaatam la tant d'autres bëri na ay membres yoo xam ne ñu ngi si yeneen secteur waaw di si joxe seen xalaat bu baax. di nuyu tamit Xaadim Anta Seck. wax dëgg yàlla gis nañ tamit taxawaayam si jàmbar production boobu ba léegi mu ngi fexe journée bi nan lay def pour mu améliorer mu am niveau. waaw te tamit gis nañ ne le 19 incha allah suñu wàccee si géew bi jàmbar production dinañ xam ne ñii. amaana mën tur bi mën na nekk gan si làmb mais ñi ay organiser làmb dun ay gan si làmb moo tax suñu tegee plateau bi rek monde làmb amateur yi yëpp waaw le 19 jàmbaar production incha allah wane ngi bu ñëwee rek baaba jaxal ñëw ànd ak wane ngi mage ànd ak ay soppeem ak i mbokk taalibeem billaa di ngeen réussir. waaw incha allah di wax tamit comme euh, jaxal ni mu ko waxee rek. Hmm. mën na ne crème làmb si espoir yi dañ leen boole le 19 juin. Hmm. waaw le fait que nga indi baaba jaxal bébé bismi indi euh, jeex jàmm digganteem ak euh, Aliou Fat Fat. Mm-hmm. indi tamit uh, caatu piol Ibou Afia maanaam dañu boole crème lamb bi nga xam ne promoteur yëpp seen xel da si nekkoon. Mm-hmm. waaw ñu décolosé ko caatu seen sala ku ko si amoon parce que ñaar taxaw nii. bis mi yaa gën a grand combat jaxal proposé nañ ko grand combat. Mm-hmm. jeex jàmm proposé nañ ko grand combat caatu piol pareillement. ça veut dire ne mbër si bëri ñëpp presque ñu si bëri proposé na leen grand combat mais ñoom dañu sentir bëri si le 19 juin bi. parce que tamit bu mag la bis boo xam ne da si war a euh, dekkiwaat espoir yi parce que tamit ñii ñooy ëllëgu làmb te làmb tamit euh, il est temps relève bi nii ñu leen di favoriser jox leen seen cër jox leen seen valeur. Mhm. fay nañ fi mbër cent millions cinquante millions te ñii ni ñuy def stade yi ñooñu duñ ko def stade ah, ça veut dire ñii mérité na lu neen si làmb moo mhm. tax saa su ne vision dañ day tegu si ñoom. Mhm. te tamit dañuy am yéene jàppale leen bu baax a baax pour lamb mën leen xam adduna mën leen xam. te incha allah suñu commencé phase promotion le 19 bi. dinañ xam ne jàmbaar production bi ñëwul si làmb pour jouer ay secondes leader leen bëgg a nekk. te tamit ñu ngi si afice bu mag. waaw di ñaan yàlla mu sot su sotteeg jàmm. affiche boobu le 19 bëgg na ñoom ñaar ñu jàkkaarloo fii si stade bi arène national bi. Mm-hmm. waaw te incha allah sànq rek récemment signé na ak Momo Ngom ak euh, Mbayang Loum. ñoom ñoo nar a animé làmb ji muy wane cosaan dafa war am si journée bi quoi. waaw dio bu garaaw leen signé sànq leen signé ak ñoom ay contrat pour le 19 juin. Hmm. te am na yeneen innovation yoo xam ne tamit jàmbaar production mu ngi koy waajal pour le 19 juin. Hmm. te incha allah li ñuy gën a dem plateau yi di gën a dem dinañ gën yaatal suñu programme ak projet bi nekk nii nan la ñuy def pour làmb àdduna ñëpp bàyyi xel jàmbaar production bi daal. jërëjëf am na solo ñu koy jaajëfal bu baax xam naa ne àjjuma bi ak waxtu julli bi ñu ngi leen di jéggal bu baax di jox ñaari mbëri xanaa ñëw joxante loxo ku ci nekk jox ma raw rendez-vous xaaral gars yi jël leen photo jënd leen.